jëli pajum cosaan <laughs> kaddu gaa ngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbow ñu am mbégte di am kontante di delse yéen seen rubrique bu mag bi nga xam ne moom lañuy wax pajum cosaan ñu ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ci waxtaane lu jëm ci wàllum pajum cosaan waaye itam di ci waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu actualité nga xam ni senegal dañ koy déglu di ko bàyyi xel daal di wax ne li xew ci pénc mi alxamis ca ngoon la ñuy xam dëgg-dëgg li yeey lan ñu ciy ànd ak Cheikh baara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa wa sahbihi wa man wala wala taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurati ahyunin jazaan bi maa kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu alaaji saa njoogu di nuyu ñu bokkal plateau bi di jiital ci nuyoo yi ak eh, eh, siyaara yi Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Mouride di ci di ko ñaanal mu yàgg fi te yàlla may ko kattan ak wér. amiin ba la mu bëgg a lépp ci njab ñu woon sëñ Tuubaa mu liggéey ko ba amaat ba amaat yeneen i naal te yàggale ko barke sëñ Tuubaa. amiin ñu bu baax suñ soxna Bali Muntaxa ak sëriñ Abdou Samad Mbacke Sohaybu ak euh, sëriñ Basiiru Mbacke moom sëñ Abdul Xaadir di nuyu sañ Abdul Xaadir Njaay di xalifa sëñ Daaru Asan di nuyu sëñ Moustapha ibnu Cheikh Sidil Maxtar euh, ak soxna mi Mbacke bintu Cheikh Sidil Maxtar di nuyu sëriñ. Jili ak sëriñ Abdou Samad ak sëriñ Mouda Issa Mbacke ak sëriñ Abdou Latif ak mboolem njabootu Cheikh Sidi Maxtaar gépp di soññee tamit ne mardi bii di ñëw incha allah di la 12 décembre mooy màggalu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara maanaam màggalu sama sëriñ sama turandoo sëñ Baara sëñ Moustapha mu Cheikh Sidi Maxtaar di ko woote ca Mbacke Kajoor di ko yëgal ñëpp di ko wooteel mboolem njabootu sëñ Baara gépp di wax euh, incha allahu taala mardi gàmm ña fa waaw kër kër sëñ Abdourahmane Mbacke euh, monsieur Abdoul Aziz Baara foofu la ñuy nekk incha allah ñu ngi ci woon nag ñëpp ñu euh, ñu ñu ñu waaj ko. di nuyu Moulay Hassis Guèye di nuyu sama najaay Seex Lo di nuyu sama najaay Muudu Mbacke Lo euh, di nuyu Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndaam di nuyu sama sama benn goro Mouhamed Ndiaye papa Astou Ndiaye nekk Italie Grenade. nekk defe naa la de xanaa. Grenade ah, ah, naa ko. léegi daal Mouhamed Ndiaye. Eh, waaw yamatu papay Kati. waaw Ndiaye Kati. papay Astou Ndiaye. waaw waaw fàtte naa ko loolu la nekk Italie waaw. yow saa yow xam fi may wax yow noppi rek. <laughs> jërëjëf Cheikh Baara Ndiaye borom dem gis macha allah ñu ngi am mbégte ak kontaan ci yow Cheikh Euh, coowal Cheikh Yérim de dafa lëmbe toile bi maanaam foo tourné gars yi di baddax mbiru seex yirim Seck ñu bari nag woo nañ ma sax téléphone naa ma ah loolu de seex Bara ñi ngi ko ciy xaar ñi ngi koy xaar ci mbirum seex Yérim gi parce daal xam nga yow dafa am yoo xam ne danga koo waxoon fii daan ne Cheikh Yérim saa yu génnee sol kos bu bees def émission bu bees sos sos yu bees <laughs> loolu sax boo yaa ngi koy partagé mu nekk loo xamante ni bi lu am solo la Cheikh Bara Cheikh Yérim Seck sorteem bi nga xam ne moom la def laal na nag ay points yu bari noo jàngatee Cheikh Yérim ak waxtu wi mu génn ak ni mu génnee ak li nga xamante ni moom la wax kan la doon waxal lan moo lan mooy mbir yi daal noo jàngatee mbirum seex Yérim. waaw maanaam mbirum Cheikh Yérim de maanaam mën naa wax ne mën naa ne amul solo su ko nit ñi jox. amul solo waaye am na solo. Hmm. parce que da nga ciy wane rek dégaré bi bi leen bi leen maanaam da nga ci mën a jàngate lu bari daal ci aspect politique ak timing bi ñu nekk. Hmm. waaye lu am solo. du lu am solo parce yirim moom maanaam ñi muy nax léegi xam nañ ne da leen di nax. ñi nax xam nañ ne da leen di nax moom mm-hmm. askan wi lay jéem a nax. Mm-hmm. te askan wi moom euh, moo tax keroog bi ma ko séenee mu solu keroog solut costume. Mm-hmm. waaye ma nga sol ab euh, yére bu bees la xaw ma bu kaki ma ne tey de tur wuyu na borom ndax enveloppe ba sol na couleur bu enveloppe. ah enveloppe bi. ah maanaam yirim askan wi ab enveloppe lañ ko jàppee. enveloppe lañ jàppee ab enveloppe boo xam ne moom ab bataaxal lay def rek bu ñëwee yulli bataaxal bi delluwaate <laughs> ah. léegi nag moom ah. xamut ne nit ñi ab enveloppe lañ ko jàppee. ab bataaxal la képp gis naa ko keroog mu ne xew di nuroo ko envelop man ne ko ah <laughs> mu du lonkal ko ah, ab enveloppe la gis nga ne nag yërim nag fii ne moom nit ñi maanaam keroog dem na xam nga mas ngaa gis nit yow ñu dalal ak nit naan ko ndax say wax ngay wax wala ñu la yónni ngay wax. sa wax ngay wax wala sa luñ la yónni. wala ngay wax. ah bon loolu may mën a dund laaj na ko yirim yirim naan ko samay wax a ma ne ko déedéet ab enveloppe buy wax amut. enveloppe bu nekkee la ca biir la la ca biiree wax waaye moom waxut. moom waxut waaw en tant que yirim fii ne kenn amuti kenn xamuti xalaatam. Ah li ñu ko moom li ñu ko yónnee rek lay wax. day dox yónnee. ab enveloppe la lu leer laa la wax. Ah. nit ñi xam nañ ko. man ba ma toogee timis te ay boori timis seen ñu ne Ismaïla Madior moo publicité ne déglu leen Yérim ca takku ca ca ca émission ba day wax. waaw laa ne kon de courrier Ismaïla lay indi rek. courrier Ismaïla waaw. maak Omar mii ñoo toog ma ne ko kon tey jii dana waxati lu rëy loo xam ne bitim réew lay jógee ndax Ismaïla mooy ministre affaires étrangères waaw waaw waaw waaw te boo demee courrier la boo xam ne Ismaïla ko ci dugal naan ee eh, xaar leen sama lettre bi gannaaw timis dana wax dan dan dana ñëw ci yéen xaar leen lettre bi kon boobu la Ismaïla posté daa posté waaw léegi nag bu ko defee nit ñi toog di xaar di xaar enveloppe bi léegi nag gis nga loolu sax dama ciy njëkk taxaw gis naa yërim ne hmm. loo doon ci mi mu ne waaw gis nga man suma amul woon nu ma toll ci réew mi biñ ma publicité kenn gis nga nit ñi niñ ma doon toppee hmm. xam nga loolu sëñ Mansour si da cee waxoon ay wax maanaam dana yoow yi daa ñëw ci maam ji waaw ne ko waa maam xanaa damaa nekkob star mu ne ko lu tax mu ne ko fu ma romb ñu may tàccu hmm. mu ne ko ay waay doom boo xamoon tàccu yooyu waaw da nga xam da nga xam ne maanaam loolu jotewut ak star dara waaye yërëm nit ñi ni ñu koy toppee hmm. moom comprendre ko waaw xam nga nit ñi hmm. Ousmane sonkoon moo am doole ci politique bari nit bari gone nit ñi xàmmee yirim ci ñi dàq ñeme ñeme yàlla moom sosal Ousmane Sonko lu teguwut fenn. Mhm. ñoom nag dañoo dem ba soppali seen bopp maanaam par exemple prisonnier bi toog ci biir kaso bi. waaw su ne ay man de xanaa président bi sax maa ko fi ëpp maqaama man fu ma tourné dañ may xool dañ may topp dañ may garde mhm. te man ñi may garde sax état leen di fay. waaw waaw mën na koo jëlee aspect ne star la. Mhm. waaye na xam ne rek dañ koo wóolatut. waaw ba di ko garde waaye nag du dañ koo fan ba di ko garde waaw yërim maanaam nit ñi topp gi ko topp nit ñi dañoo dem ba wóolatuñ ko. Mhm. soppi seen bopp ay pénitencier def ko prisonnier te yëgul maanaam fu mu jëm ñu koy garde fu mu ne yërim ma ngay wax rek dañ gars yi dañuy daw taxaw pour pour lu mu teel a wax gars yi teel ko mën a dindi maam looloo ko booleeg nit ñi ah. léegi nag moom ci biir doolee Sonko la nekk di dem te yëgul voilà léegi nag balaa moo xam ne moom du dara mhm. na essayé mu bind benn livre ah, waaw waaw kat ci Sonko bañ koo tudd ci dara mhm. xool ba xam nu muy toll bañ cee wala mu ne émission moom du ma koy defati du ma tuddati Sonko fenn. waaw mu xool ba xam ñaata vues am wala nan lay demee nga xam ne leer na nit ñi ne Yérim moom bàyyi naa sosal sonk waaw su ko bàyyee. Mhm. mu yëg ne du dara ci nit ñi. Mhm. Sonko moo am doole. gis nga président Macky Sall mii. dafa dem ba nekk ci biir euh, maanaam fon feuille de route Sonko. Ah. fii ne ku ko saa ku ku ku ku waxal Sonko. lu bon. waaw maanaam moom moom maanaam daal il faut nga wax ci sonk da wax ci sonk lu baax. Mhm. mu woo tëj la ngay wax ci Sonko lu bon mu woo la la kon donc moom sax ci Sonko lay dox. ci Sonko lay dox moom mi ngi ci biir focus bi fii ne te yëgu ko. mi ngi focus. waaw am na am na ministre bu ñuy wax Antoine Antoine nan Antoine bu bees mi. Antoine Mbengue. waaw dafa ñëw mm, opinion la xaw ma ba seen émission boobu ñuy def euh, RTS. waaw toog fa woo ko def ko ministre ci même deux semaines yi matu ko. waaw Macky sax day focus fii ne. focus la waaw fii Sénégal ñëpp ay focus. maanaam kay focus ci gauche bi wala focus ci droite bi. Ah, ah. Yérim nag daa bokk ci benn ci côté focus bi yaakaar ne moom la. mais focus bi la de. d' accord du ci moom loolu moom na loolu moom na njëkk leer nañ. waaw leer na. léegi bu ko defee. Hmm. tontu lii may tontu nag maanaam damaa yaakaar ma ni du ko jar. tontu bi nga koy tontu. waaw ah jar na ko kay. parce que parce xam nga lu tax du ko jar. Hmm. Sa Ndiogou bu fekkee Sénégal dañoo bëgg ne ab débat am na. Hmm. danaa ñëw ci ñi wax débat bi sax moom. waaye ñu ne lu ñuy wax. ñu ne dafa am onze milliards. waaw yu jógee bitim réew. dugg ci réew mi. dem tuubaa ñu séddoo ko. pour jàppale Sonko. maanaam onze milliards buy dugg ci réew mi ci avion bi lay jaar wala dañ koy wéere ci banque yi wala dañ koy def ci wëlis indi maanaam loolu rek boo ci taxawee war a xam ne lii du dëgg ah. muy benn ñaareelu wax ji mm-hmm. nee na waa ji bi mu lekkee xaalisu ñooñu mm-hmm. dafa am ñooña ñum tamit ña nga fañ nekk di ko xoqatal ba mu tiit waaw nan la am réew mën a nekk fa mu nekk mm-hmm. ñun ñu am ab armée am ay service secret am am lépp am réew mën a yebal ay nitam ñu dugg ci réew mi bay xoxotal leader opposition mm-hmm. fan la ñuy jaar lan lan yore ban ban réseau lañ koy wooyee mm-hmm. wala du suñu lii yi téléphone yi wala lan daal nan lañ ko loolu nan la mën a nekkee mm-hmm. loolu rek boo ca taxawoon da ngay xam ne lii du dëgg ñetteel bi ci des mooy boo ca déggee ñu ne Sonko dem na nga xam ne maanaam état bi yëgut xoxotali am réew mu bëggee xoxotal benn benn doomu Sénégal nan la koy xoxotale ci ban anam loolu kenn mënu koo xalaat moo tax wax ci amul solo. waaw waaw nan la mën a maanaam tey Gambie nan la mën a nekk fii di xoqatal Sohaybu mhm. ba Sohaybu sonn te Sénégal yëgu ko. waaw mënta na frontière la yor di. Mhm. yorub état yor yor yor arab yor yor yor kaaraange gu doy. Mhm. nga ne loolu mën naa nekk. ci ku mel ne Sonko. boo nee loolu mën naa nekk kon waxoog Sonko état bi ngay xas. boo nee milliards yi mën na fee dugg waxoog Sonko Macky Sall ngay waxal. <coughs> nga waxaat ne da ngaa jël Sonko daa dem ba bindub leetar. dem ci Macky Sall naan ko Fatma. Sonko mu bindub leetar delluwaat ci Macky Sall naan ko dimbali ma ci sama njaboot looloot xam nga ne bu ñu ko waxee ah, maanaam yenuwun maanaa léegi nag lii mm-hmm. ñett yu yenuwun maanaa la ñett ñu yenuwun maanaa di ko wax ñett yu yenuwun maanaa ñett ñu yenuwun di ko wax xam nga loolu tamit maanaam jëlul am maanaa uh-huh. ñett yu yenuwun maanaa la xaalis bi leetar bi menace yi benn yenewu ci maanaa léegi nag ñett ñu yenuwun maanaa di ko wax uh-huh. muy kan muy ma jambal ma jambal yenuwun maanaa ndax moom moom journaliste la boo xam ne correct correct correct correct correct ngi koy topp maa ngi nii di jaabante diffamation la defal euh, mi ngi nii am na dossier diffamation bañ daan ko trois mois ferme mhm. ba mu def appel mhm. journaliste bu ñu def diffamation bañ daan la yërim mi ngi nii ci weer wi daa war a wuy ji diffamation ñoom ñaar ñëpp koo ci topp ma ngay lambar lambari euh, tribunal ndax sosal ay nit mhm. diffamation mooy sosal as nga defal ko sos ko bañ woo la en tant que journaliste kon yéen woo maana Matar Diop Matar bu ci dolli koo moom it a ñàkk yenu maana xam nga kuy Matar bu gàtt bi waaw <laughs> Matar Matar moom Matar moom man Matar man Matar moom man moo ma décevoir ci affaire bi. Matar ah parce que lii ñuy wax nii. xasut Sonko Touba la xas. tu ah, journal bi. Hmm. xasut Sonko accusé wut Sonko Touba la accusé. Hmm. daf ne. waaw ay alal ju bari. Hmm. mi ngi jóge bitim réew. ñi koy sotti waa Touba. pour ger leen. ñu jàppale Sonko. kon donc xëy na. waaw Sonko sax mën na ko ba ñu yëg kon bu fekkoon dëgg la. mooy alal ji Touba lañ ko sotti dañ leen di ger pour ñu jàppale Sonko. Mm-hmm. léegi Matar Diop maanaam non seulement wax ji Touba ger ak alal juy dugg tuubaa mm-hmm. lijjantiwu ko. moom mooy taxaw ne loolu da koy dëggal. Mm-hmm. pour que ko mën a taq waa léegi tuubaa gi ci taqaale moom lijjantiwu ko te boo boo fi jógee naan Touba Touba mais malheureusement Matar Diop dëkkut Touba. dëkku fu mu déet déet Matar Fuuta la dëkk. Matar Diop Matar ba ma ko xamee yàgg na ëpp na léegi mu man ñaar fukki at. Ah. Matar Fuuta a jóge waaw ñëw Touba Moustapha Cissé Lo mii mooy ko baax rek. mu nekkoon dëkk mu nekk booyub Moustapha Cissé Lo bu ko daa ataayaa la ka doxali ganam. Mhm. li ma lay wax yàgg na jamonoy wàdd. moo ko daan ataayaal di ko demali ganam ay ñoom Bas Jaañ Mor Aaj boo yooyu yëpp ko xam Cissé Lo. mi ngi mel ñi may àndeek Baye Mbaye rek. Mhm. Matar Diop ku xam Cissé Lo xam Matar Diop ca ñaari mbubb ak ñaari tubay yi foo ko fekk ñaari mbubb la amoon ak ñaari tubay li ma lay wax waa Touba gépp ak may dégg ah bon waaw waaw di ànd ak Cissé ñaar képp bu fóotee bii sol bii li ma lay wax kenn sosu ko mhm. Cissé ànd ak Wade ba yàgg mu bàyyi dem ci Macky Sall bi Macky Sall faloo Cissé Lo xam ne sama booy bi kat naa ak man Matar mu jël ko lijjantil ko chargé de mission chargé de mission ba yàgg ñu def ñu wate euh, haut conseil mu wutal ko fa poste mhm. Cissé Lo nekk point un gii. ma di ko fa fekk mu dëkk ca biir kër Cissé Lo ne fa. moom moom booy yi ma la wax yëpp. waaw Cissé Lo am ak problème waa APR. waaw Matar Diop bàyyi Cissé Lo mi ko jëlee Touba defal ko lépp ci àdduna fabriqué ko toute pièce. maanaam bàyyi ko dem ca nooni Cissé Lo ya jàkkaarloog Cissé Lo di xeex ak moom. wallaahi lazi. Matar Diop bu Matar Diop mii. waaw dégg mhm. léegi nag Matar. gaa ñi dañ ko récompenser lii rek. Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Abdou Bali moo démissionné. moom mu ñëw. waaye Matar bu doon diiñ fiis Touba. waaw di ab murit comme ni mu koy waxee. Mhm. bës. Mhm. am na ci bës nag. ndax ñu ngi naan Matar Diop Matar Diop. Mhm. waaye bës bi am nga ko ci. jëlal waaw da ngay dëkk Touba. ñu tuumaal sëñ Touba wala ñu tuumaal waa Touba ab alal joo xam ne léwut. waaw luñ ci jublu dañu leen di ger mel na Touba moom ñu ñuy ger lañ pour ñuy jël ay décision. waaw nga taxaw ci kaw loolu yow di ko jéem a dëggal. Mhm. pour que rek Ousmane Sonko na taq mhm. léegi Touba gi ci taqaale itteelu la te nee nga boo paree nee nga dangay ngay duggaat Touba naan da ngay mhm. ñun nga fay fekk waaw yow doo député Touba parce que député Touba yi mooy ñoom Cheikh Coro ak ab sëñ Abdou Bara Doli ñooñu Touba lañ juddoo yaroo fa màgge fa bokk ca dëkk ba Matar nag moom Fuuta dëkk bu baax la am na kilifa euh, am na nit ñu baax ñu fa ne fara président bi sax juddoo da ngay dem Fuuta ga nga dëkk nga lijjanti ne nekk foofa député Fuuta dégg nga waaw Fuuta la dëkk di laaj ko ko moom du ko weddi waaw awo Matar day làkk pël sax mm-hmm. foofa la dëkk Touba neex rek si seloo yaatal ko fa rek mu ñëw bëgg a toog suñu bopp yi mm-hmm. mais lii moo lay wan na yow gëmoo Touba gëmandoo Touba parce que man wax jii su doon man maa nekk sa place ñu ne dañoo jëlee ay alal bitim réew mm-hmm. sotti nañ ko Touba Sonko lañ ci bëgg a jàppale ak nu mën a demee man dinaa taxaw setal Touba moom mais comme nag Sonko ngi ci biir rek xaaral dëgg la kay nangam nangam di xetar xetari ah. loolu moo la koy wax léegi nag mhm. Matar moom du du xeer du xeer xam nga ne ku dem waaw xam nga ne yow ku dem yow ba mu nekkee député léegi mhm. xoolal njaaxum yi muy wax Antoine ñëw na ci assemblée national mu ne ko Antoine xam nga lu ma lay xalaatal man ci opposant yi moom ah, Matar Diop ñu ne ko waaw mu ne da jël ay buum yeew leen def leen ci gaal yi mhm. ñu yóbbu leen ba digg géej ñu jox ah. leen jën yi ñu lekk leen moom loolu la yéene Sonko ak ñoom Khalifa Sall ak ñoom Déthié Fall ak Bougane ñoom ah maanaam loolu la bëgg moom ñu def ko Sénégal beneen ministre ñëw fa mu ne ko da ngay wut ay tool mhm. ñu jël opposant yi nekk ci réew mi yóbbu leen foofa tëj leen fa di leen defloo travaux forcés mhm. maanaam jàppum jaam ah. jàppam jaam Matar Diop moo ko wax ma moo ko moo ko wax ci mhm. assemblée bii ah. léegi waxi dof boobu nga bëgg fee nekk na di ñu di ñu di ñu di ñu imposé naan non député ko wax député ko wax ab député yërëm nee na député ab député ne moom. Hmm. wax na ne Matar Diop moomu sàcckatu engrais la. waaw engrais yi béykat yëpp moo ko sàcc. Hmm. alors léegi loolu député ko wax. am na député bu fa taxawoon daan ne mooy mooy mooy kii naan Fawceyni Fawceyni nii ba mu nekkee député. Euh, ba mu nekkee député neewoon a maag Sonko dañuy daja kër Macky Sall par guddi. Hmm. am na beneen député bu fooxoon Sonko am na trois cent terrain mbuur yooyu yëpp wax nañ ko fi anam. alors que nga bëgg ñëw loolu lépp dinaa ci ñëw lan moo tax mu ñuy imposé ab député. léegi bu dee yirim mi nga xam ne moo wax moom itam. waaw enveloppe bi. yirim moom enveloppe sec moomu. waaw yirim. Mhm. dafa ñëw ci ñun benn yoon. Mhm. nenu maanaam Karim Wade le 3 décembre laa lay wax de deux mille vingt deux mille dix huit. Mhm. ne Karim Wade day ñëw ci ay élections yi. avion sàngam lay jël. diw ak diway nekk ci abion ba baayam dafay nekk diw da cay nekk diw da cay nekk lim délégation bi Karim war a àndal. te 3 la 3 decembre deux mille dix huit. ba tey jii yërim Karim Wade ñëwagul hmm. xam naa teel naa dagg béyee nag moom da béyee boo xam ne 2018 lañ ko daggoon ba tey ñëwagul waaw teel na kon hmm. ñaareel ba ci des yërim toogaat fii ak fajar jekk-jekk nañu daal man bàyyi naa wax ci public bi ah, donc kon maa ngi dellu ci samay famille dootuma waxati baal leen ma àq baal naa leen ah, xëy xëy xëy xëy hmm. dikkati dégg nga yërim jekk fii bindub lii ab lii faram Sonko dañ ko fekk ci biirub oto moo jigéen waaw teguñu ci une semaine Yërim weddi wax ja nu ko wedde bind ko weddi ku neen dootu ko waxate ci àdduna kon kay dëgg kay ku ko wax da ko waxaat <laughs> mbir kay boo ko waxee matut semaine nga ne dootu ma ko waxati mooy du weddi naa ko du dëgg <laughs> bindu téere ba noppi weddi téere bi rek Yërim a ko def waaw Yërim jógeeti ci mm-hmm. ñëw ci may mën a nduur fay toog mm-hmm. ñu jàpp Sonko nangu ay téléphone am mooy bi mu jógee Koungheul mm-hmm. mu ne alhamdulilah rabbil alamin may mën a nduur ne ko lu xew mu ne ko téléphone yi parlé na téléphone yi wax na. waaw waaw téléphone yi lu mu parler. Mhm. mu yëpp Maymuna Nduur ba bëgg a dee ne ko dañ la du doon bëgg rey lakk sab télé. ak man waaw. may mun na dama koy laaj nit nan la mën a ñëwee ci yow. toog ne la sama ne yi dafa parler. waaw ñu ne ko lu mu parler mu defal la menace de moo yow. Mhm. ak yàq sa alal. ne la maanaam degré boobu la. nga invité waat ko te nii woo ko fu parler bi toll. waaw waaw war na ko waaye nga sappe ko carrément benn sa bakk da laa ñurut wala li yirim di wax da nga ko gëmatut léegi nit boo ko gëmut loo ci éviter di ko imposer nit ñi mhm. parce que may mun a moom bu gëmoon ne soo euh, yirim li mu wax dëgg la dootu nelaw te lijjantiwut loolu te pour yirim li mu wax procureur ko weddi procureur de la république bii ah, ndax moo jàpp Ousmane Sonko yóbbu yóbbu ci prison bi def ay sarsam hmm. xool lépp lu mu jàpp ne lii sars la bu ñu war a toppee Sonko hmm. te ba léegi déggoo ci téléphone yu parallèle waaw nee na ne lii dañ ko fekk ci téléphone Sonko te waruñu ko caa fekk ko ci te yirim moom téléphone yi wax yirif moom moo ne téléphone yi da doon mën daa am ñu menacer seen vie ci àdduna bi ci Sénégal gi mhm. donc mooy loola ëf dara amu ci mhm. yirim jógeeti ci dem ca Pam Ngagne toog ne hee yaay Sonko day waaj a génn waaw du mën a yàgg ci kaso bi waaw fan yi di ngeen dégg mu génn génnut waaw mu ne xew na cell mhm. yirim waxaat ne man gentleman laa waaw gentleman ñu ne ko léegi mu ne gentleman du fekk nit ku nekk ci prison mu koy attaqué Mm-hmm. donc comme Sonko mi ngi ci prison te man gentleman laa. Mm-hmm. dootuma ko attaqué. waaw waa léegi Yérim yaa nekk yaa nekkatu nekkatul gentleman wala Sonko daa génn prison. Mm-hmm. waaw jar naa laaj. am na lu ci ne. wala boog boo solee costume ngay nekk gentleman boo solee. Euh, enveloppe doo nekk gentleman. waaw jar naa dégg nga maanaam moom Yérim moom mooy nit koo xam ne gis nga bërki démb nee na. ba mu njëkkee bindub nee woon na. astu jon lañ sàcc téléphone am. waaw mu mer bindub livre. léegi astu jonn dem na. keroog ci may mën a duur fay nee na daa toog ci géej gi di lekk jën am ko xas Macky Sall mu mer bindub livre nga xam ne ah. yirim moom sax moom ah. maanaam yirim moom de yóbbu ko xaw ma psychologue lañ ko xaw ma <laughs> ah. xaw ma psychologue yi waaye ko daa yóbbu moom damaa mm. booy booy kas maanaam fenkat bu ne xel war naa neex mm. loolu moom yirim war na ci entraîné wu waat moom day wax fii fàtte ko waxaat lee mm-hmm. donc kooku mooy yirim sekk ay waxam jër taxaw di du ma sa doom mm-hmm. dégg nga d'accord léegi nag li am mooy lan moo am mm-hmm. mooy yirim ñëw na ci émission bi émission bi nag ñett rek la ban laa ko mën a jàppe mooy njaxal gu duun njaxal gu duun yaayam daa gaañu woon fan yee njaal mi duun mu hmm. ñëw di delloo njukkal ñu ko doon jaa ñi ko njaale woon kon fay bor la delloo njaxal la delloo njaxal xam nga dañ naan delloo njukkal waaw waaye bii delloo njaxal la hmm. man noonu laa ko mën a gise hmm. ñaareel bi ci des mooy yirim par la force waaw may mun a nduur fay dina ko laaj ci affaire euh, euh, mooy euh, Canard enchaîné bi par la force dina ci tontu xoola yërëm lu ñu ko laaj ci émission bi. waaw tontu na ko légèrement. waaw mais gis nga bi ñu egsee ci ne ko Birahim Seck dafa war a wax ci lii gis nga treize minutes jëm quatorze minutes. jël na ko yërëm jël na ko ci loolu. kon loolu taxoon mu jóg bi ci des mooy. Mhm. bi mu jëlee treize minutes biir treize minutes yi. waaw diggante na leer. bu leeree ñu leeral daa war a leer maanaam loolu noonu. wax na quarante deux fois leer baatub leer leer rek. 42 fois waaw. Mhm. nga xam ne maanaam objectif bi mu amoon mooy. waaw bu ma ñëwee bu ma ci waxee ba noppi maanaam askan wi danañ ma gëm maanaam taxaw temm ci mbir mi na leer. Mhm. léegi sa booy seetlu saa bu ko may mën a nuur ne waa Yërim léegi kon ñu tijji ci enquête ci kii bi mu ne ko déedéet. waaw na société civile bi bind. ñoom dañuy tiwit xam nga lan moo am. dañoo defoon suñuy milliards rees. waaw biñ ne fonds contre Covid 19 bi dañ koo lekk. nit ñi dañoo jóg. dal ci kaw Mamadou Moustapha Ba te xam nga fan yi moom moom la ñu raayal tànk ñoom ñëpp société civile bi woote am ndaje ci place de l'Obélisque mhm. ñoom loolu lañ bëgg lii mu amaat ci lii mhm. looloo tax ñu interpellé société civile bëgg leen a piéger waaw dugal leen ci seen lii mhm. yow lan moo am maanaam benn information la boo xam ne yirim ni mu ko traité sax du dëgg ah bon Canard la wax ne moo ko bind kanaar Canard enchaîné bind ko kan moo ko bind la maanaam Canard enchaîné moo ko publié mais deful enquête bindul ah. li ñuy wax pésiste mooy tey man na maa jël sama benn article bind ko ci lu ma neex ci réew mi dem jox ko benn journal mu publier ma ko ma signé ko loolu mooy pésiste hmm. loolu yoonu journal bi nekku ci kon donc bu bëggee ne Canard Engager moo bind li moo bind moo bind titre bi hmm. waxul dëgg pisiste moo ko bind hmm. léegi lan nga bëgg a laaj kon kan mooy pisiste bi dégg nga sa maanaam bu dee ñaari ñaari publication la benn bi Marianne la benn journal bu nekk France benn bi Canard enchaîné ñaar yëpp pisiste moo ko bind. ñaar yëpp ñaar yëpp. Hmm. bu dee pisiste bi nga xam ne moo ko bind ci Canard engagé bindul turam. bindul turam waaw dafa def lettre J ak lettre C. C J ak C. la def hmm. man dafa adresse rek. Ah. mënoo xam kenn moo nekk ci gannaaw lii. waaw ah. lan la wax mu ne ab ab ab ab diplomate marocain. waaw ah. diplomate marocain rek la wax waxut kenn. Hmm. nee na maanaam. dañuy xëpp Touba xaalis pour ñu jàppale opposant bu tudd Sonko mm-hmm. ñu ne kan moo ko wax ñu ne pisiste la kan mooy pisiste bi vigé nga dem euh, journal Marianne mm-hmm. euh, nga fekk fa moom tamit publication bi ñu ne kan moo ko bind ñu ne pisiste encore pisiste bi nu mu tudd ñu ne Étienne Kassaagne Étienne Étienne Étienne Kassaagne la tudd mm-hmm. pisiste la Étienne Kassaagne moomu ñu ne lan la nga dem tiwit pour xam kan la amul tiwit Mm-hmm. nga dem Google di ko fa seet amul Google. nga dem YouTube wala Facebook fépp fu ni fu ñu mën a saytoo doomu aadama maanaam existé wu fa. kon lan nga bëgg a wax mooy lii maanaam ab faux piste la. Mm-hmm. léegi nag lii kenn mënu koo traité lu dul da ngay delluwaat ci Tilo Owel ba amoon ca deux mille dix neuf janvier. waaw mooy élection dafa jot pour ñoom ñu ñuy bëgg a def benn opposant mooy dañ koy bëgg a yàq. Mm-hmm. mais pour ñu bañ ku leen pour poursuivre mooy ku leen topp ci yoon. wala. ñu bañ ñu bëgg mu crédible ñu dem France lijjanti lijjanti ba fexe ba benn journal tiitalal la génne ci dara lu mu ci wax lu mu tuuti tuuti. Mm-hmm. biñ maanaam Tilo Ewel Yérim moo ñëw reprendre ko. Mm-hmm. mooy li may wax un euh, maanaam quatre euh, un euh, quatre un mot. boobu waaw. quatre images un mot. mooy lii rek. Mm-hmm. Yérim Madiambal Moustapha Diakhaté l' observateur. Ah toujours même même chose la. suñ xëyee waaw mooy quatre images la yoo xam ne un mot ñu signifier <laughs> léegi nag yim daa di reprendre ma jambal xëy jël ko l'observateur titré Mamadou Mamène Ndiaye ñëw revue de presse xoolal bii jàll waaw bi ko bi ñu ko defee est-ce que xam sénégalais yi xam nañ ne lii mi ngi nekkoon la 7 juin juin waaw boobu Sonko ngi fii këram tëdd le set juin waaw bi ñu bi bi procureur naan Sonko dafa sàcc ab téléphone ñu nañ ko jëli waaw maanaam booba ñu ngi koy wax ci tudd nañ ko ci lii kon mhm. maanaam état bi gis na lii jërul jàppu ni mhm. ñu dem ba tey ñu bëgg koo yëkkatiwaat mu nekk lu farataw mu mel ne lu bees mel ne lu bees mhm. beesut léegi xam naa ne lii nag ku xool nañ ko tëggee da xam ne def nañ ci xaalis bëggoon nañ mu siiw parce que def nañ ko tuilier nañ ko kenn faalewu leen léegi pour ñu pour ñu mën koy yëngalaat dañ koy jox benn député waaw Matar Diop taxaw Matar sax boo xoolee xàmmeewut bii piig moom xamut luy loolu dañ ko ne waxal lii rek <laughs> mu taxaw di sotti ko mais boo li lay sentir doon ne gars yi feeñ nañ xamu mbiri xamu ko moom tuddul xaalis <laughs> tuddul dara mais li lay xamal ne gaa yi feeñ nañ mooy bi mu ko waxee rek ma jambal daa daal di defub sorte waaw na day jël li li Matar Diop wax waaw ne li Matar Diop wax ñu ne ko waaw bi mu koy waxaat nga yëg ni kii nag moo mokkal mbir mi moo ko gën a mokkal Matar mi koy wax <laughs> moom mokkal waaw da koy wax wax ju leer joo xam ne da xam ne moom mii wóolu ma ko ci ñu nekk ci gannaaw Matar ndax da ngay xam ne moo ne léegi bi ma jambal génnee leeral ko ba mu leer te ah. mataar munu koo leeral mataar mii révélé moom mënu ta leeral <laughs> yow nga ñëw jëlee ci mataar ba noppi gën koo xam mbir mi ah. Yérim sekk bi mu ñëwee moom ah. itam daa dolli ci journal bi naan moom moo financé euh, Amady journal bi waxut loolu vingt milliards la vingt millions de dollars la journal bi waxut loolu mhm. Yérim daa di ne waaw Euh, moom itam day leeral. waaw Matar Diop xamut som bi moom mu ñëw xam som bi. Mm. xanaa kon Matar moom mi ngi bëgg a feeñ affaire bi a ngi bëgg a leer. moom mu ñëw xam som bi. ko gën a maîtriser. ko gën a maîtriser Matar. Mm. léegi booy xool tamit mooy wax ji. moom bu ko waxee rek moom avocat Sonko yi fekk ko fa. pelento ah, day daw lànk bañ koo wax moom. Mm-hmm. léegi day bëgg moom appuyer waa ji waaye nag ay waxama ndax Matar. dafa am balaanu kiir laay mm-hmm. léegi danaan député bi. waaw moo ko wax ah loolu bu wax député bi. waaw kay maanaam da koy sànni député bi pour bañ cee takk. Ah, parce ah. xam na ne lii du dëgg. waaw mais li xorom mooy takk takk rek yirim moom. ñu naan xaalis bi xaalis bi rek mu ne xam naa ko passé naa samay quelques coups de fil. waaw euh, vingt la. waaw yirim bu dee da ngaa miin miin Qatar ba xam ne boo fa passé ay coups de rek xam xaalis bi ñaata la. Mhm. xanaa bi ngay bind ci sa livre. Mhm. naan du bàyyee ëpp euh, maanaam Dubaay ak Géejawaay ñoo tolloo. angal euh, Qatar ak géejawaaye tolloo xanaa sa ah, coup de fil yooyu mënoo leen woon a woo wax la ne la li ngay wax du noonu waaye yow loo dëkk boo xam ne maanaam ay aéroport Qatar mhm. moo ëpp géejawaay yirim réer Qatar xamut Qatar ba naan Qatar ak géejawaay ñoo tolloo nga di ko eh, wax di ko bind tey nga bëgg a miin Qatar ba naan passé naa fa coup de fil mhm. waxul dëgg yirim li muy def daa yomb ñu ne ko Karim Wade mu ne waaw euh, Karim Wade woo na ma mhm. nee na dina ñëw léegi man yirim Karim woo na na woowu la Karim woon na kan. waaw yow déet li mu def noonu daa yomb. ah da nga koy Yirim da ne Karim woon na ma nee na dana ñëw. waaw waaw man maa ko ne léegi man Karim woon na ma man it nee na ñëw nee wowu woowu la yow. nee na woowu waaw loolu dong la. Ah, waaw Yirim de day day fen di codé. ah Yirim day fen di codé codé. fen bu amul code rek lay def. Ah. képp. Ah. mooy li ma jàmbal def rek. sëñ Bas nee na ma nangam. daal ciy def code. kon waaw waaye doo dégg mukk Sanjoogu nee na ma wala Moustapha Diop ah, wala ma maanaam ñii yoru làmmiñ di wax doo dégg ñu jël mukk benn wax témoin la leen ko ma waxal tey nga de <laughs> léegi loolu <laughs> loolu moom c'est trop trop trop facile uh-huh. mooy toog rek di di di taral rek léegi nag mm-hmm. man benn affaire rek laa ciy wax muy mooy Euh, bu fekkoon temps bi maye na ko sax. temps am na analyse yeneen yu yirim wax yu ma ñor. temps bi jeex na daanaka. voilà kon li am solo daal mooy. Moustapha Macky Sall Macky Sall wala ka koy jàppale. waaw war wala ñii tuuf yirim xaalis bi war nañoo xoolaat seen bopp. Hmm. yirim xëyut gontut te ligg bu baax la yor gis nga dégg naa ko mu naan sama poste bi benn fiscalité ngi ci boo xam ne xaw naa yàq sama émission bi waxut dëgg. Hmm. yirim amulum xëy amutub biro bureau yooyu muy mbubboo sax naan am nangam man ka moom bureau ya xam naa ko. amul billaay biir yërëm amatum xëy ci senegal gi hmm. yërëm daal bu fekkee moom jot na jot na fiscal moom fiscalu costume la. mais yow nag yërëm poste boobu nag mu yem. yërëm poste ko amatu fi di ab seen YouTube la woon di. Hmm. yërëm amulum xëy. Moustapha Diakhaté amatum xëy. xëyut xëy yu nu gontuñu. yor oto yu tooy ma ne ñoom ñett ñëpp koo ci gis mu ngi ci ginnaaw ligsi bu baax. Hmm. léegi nag ñoom li ñuy gëm loo Macky Sall mooy ñooy yàq Sonko 2014 hmm. ba léegi nag nga topp nit di ko yàq. waaw Macky Sall war naa xool ba xam moom moom yow Sonko de yàquwut waaye ñoom ñu koy yàqet yàqawuñ de ndax ñu ngi ñu ngi baaxal ñoom. Mm-hmm. léegi nag ñoom intelligence bi ñu amul mooy nit saa boo ñëwee ne ko dama lay yàq. bu yàq yi sottiwul. war mm-hmm. est-ce que day dem ci sero saa boo ko sosalee bu sos bi nekkee dëgg li mu ko mën a yàqal. Mm-hmm. bu sos bi nekkul dëgg. loo lu toll noonu nga ko defaral. ñoom nag une waxoon nañ fi wëlis wëlisi xaalis yu jóge riis yi wax fi xaalis bu jege woon Qatar encore tey ñu ñëwaat ci Qatar ñëwaat ci turo owel saa bu ngeen sosee bu nekkul dëgg rek jël ngeen ko yéegal ca kaw hmm. léegi nag seen ñàkk intelligence bi ngeen am nii ak seen ñàkk xam-xam hmm. ak ni ngeen fexee ba nit ñi Sénégal moom waxuma na maanaam yirim moom da koy xool rek xam ne jubut maanaam du ko jub daal koo xam ne war ngaa mën a wóolu yi waxam mu hmm. Diakhaté da nga koy xool coxor gi moo lay wan na kii wóol maanaam sopp jërta déglu ma jambal moom daa yéenuwul maanaam moom moom jëmm ji da koy xool rek moom maanaam léegi nag ñooñu nag maanaam coalition bii ngeen def mm-hmm. coalition bii ngeen def ànd ak l'observateur su temps bi matoon nag lobs moom waroon nañ cee xool ba xam lobs yuusoo ko moom wala yuusu moomul lobs ah loolu foofu lobs moom yuusu dañoo niroowul daal ah. yuusu fi mu taxaw ci réew mi maanaam tànkub defar la waroon a yor waaye lobsu moom sa waay lobsu lobsu benn benn kii la boo xam ne nii ah lobsu de bu ko yuusu moomet moom kon turu turu nuru borom. nuru ko déedéet. Hmm. yuusu sëñ bi lobsu lobi rek lay def sosal ay gor man damay nekk ci kaso bi yor ko di ko liir mu waxal loo xam ne nii. waaw hmm. ah, bu dee yaa moom lobsu moom lobsu war naa dox saw doxin de. Ah, waaw nii moom lii moom kenn xamul lu mu ñuy yàq ci réew mi xool ko Aline Badara Ndao gor su yàq ci réew mi rek lobsoo koy tiitre. Hmm. d'accord loolu loolu lu koy nuru. d'accord voilà Cheikh Bara temps bi jeex na tak waaw bëggoon na maa wax nag ñetti baar rek ci ci euh, militant militant militant militant boobu dem dem APR auskuti la xaw ma hmm. ndaw Pastef la bokkoon moom waa de waaw ci la bokkoon waaye dama ciy ndokkeel dafa amoon carte de dama ciy ndokkeel président Macky Sall rek ah. li ma ko ci ndokkeele mooy am na gan ñoom dañ day am gan léeg-léeg nit bu amee gan da koy nangul hmm. maa ngi koy ndokkeel di ndokkeel waa Benno Bokk Yaakaar ndax ñoom at mu ne hmm. benn militant Pastef la ñuy am tab saagakat lay doon deux mille vingt et un mhm. Jibril Ngom la ñu amoon deux mille vingt deux mhm. Californie deux mille vingt trois Oskiti mhm. dégg nga waaw léegi nag ñoom dañuy topp ci Pastef sëñ bi di daw di daw di daw mënuñoo am nit ñu nit ñu baax ñi kay ñu jël ci nit ñi mën léegi nag asaka la loolu jël parce que sa su Macky Sall nag bu sañoon heure bii ma nga naan El Malick Ndiaye bàyyi na ñi ñëw indi ko teg ko foofu wutal ko poste léegi nag ku amut yaay wolof dane ko amut yaay da ngay nàmp maam Macky nag daa mënta am yaay ci waa Pastef waaw ah, muy nàmp ci maam yi rek d'accord loolu dara maa ko ci ndokkeel. jërëjëf seex baara tey xuus nga ba xaabaabal nga daw saag may kii mais programme yi ma programme yi moom mënut a ñàkk parce que il faut nga daal di ñëw ci programme bi tëj mais Cheikh Bara xuus nga tey. waaw jéggalu ko waaw ñëwal ci programme bi. waaw léegi nag kon. waaw hmm, bi laa topp di lire rek ba. waaw da ngaa ñëwal ci programme bi. waaw di wax rek euh, ñu ngi. Euh, nekk sa Tëngéej ci te sëñ Mansour ci terminus su 48 bi. Mm-hmm. wala wetu kër Pam Ndiaye coppet boo ñëwee foofa suba incha allah fajum hémorroïde muy ñiy seere biir bi jooy def ngelaw mm-hmm. boo demee toilette air rek di génn sa articulation yi di metti muy def ay géex mm-hmm. yooyu yëpp ak doo xiif yooyu yëpp hémorroïde la boo ñëwee danañ la ko fajal ak lu yokk ngóora ak affaire ballonnement ak affaire estomac ak yooyu yëpp danañ ko faj ak sangat juróom-ñaari sangati njare wala sangatu ubbeeku ak sangatu bayre ak ay muslaay ak luy defar say mbir daal ak seet léegi nag samedi ajjuma ak samedi ak dimanche ñu ngi tëngeej lundi mooy bis bi ñuy faj affaire rab rab bu la jàppee ak nu mu mën a demee boo ñëwee ci benn fan bi incha allah danañ ko tàqaleeg yow ba mu dañ mais da ngay woote téléphone nag sur rendez bu la ñu préparé la nga ñëw mm-hmm. mardi ak mercredi ak jeudi ñu ngi nekk asalem 2 ginnaaw école ma jiy sàll euh, am nañ boutique Thiès mm-hmm. wetu kër Mbay Juuf ñoo jàkkaarloo am nañ fa boutique boo xam ne lépp lu ñuy def Dakar ak dinañ ko def foofu. Mm-hmm. am nañ mbuur ca Abo Taal mooy ci ginnaaw osan mbuur bi sustu rek foofu la boutique bi nekk boo fa demee moom itam lépp lu ñuy saafara fii ci kër gi danañ ko saafara. Mm-hmm. Touba wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir ca Guédé. Mm-hmm. sama rakk ma nga fa moom itam boutique la lépp lu ñuy def foofu mu ngi fa am nañ ko Casamance aussi. kon ñu ngi taxawlu foofu di wax asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu fàttali numéro téléphone bi ngeen di jaar di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis seen aajo faju ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ajaratu leen nga yaangoo <laughs> léegi kañ euh, ni ma def tey laay def bu ngeen di débuté rek man la xool ko après yéen ngeen ngeen géré ko seen biir ñu ngi lay jë ah nee na matut saa. nee na matul wax mat na ay <laughs> ci remercier nañ la alaaji ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ci nuyu soxnakat yi ak ñoom Mbaye Mbaye ak euh, bàcc gajaga borom Angleterre Moussa nuy naa la di nuyu nag aboo abo mooy gérant ba ca mbuur ñu ngi koy ziyaar bu baax aboo taal merci beaucoup à toi ñu dem jëli euh, partenaires yi dellu siwaat